dalli nag jàmm mbokki internet di nuyu sifa ci xibaar ginnaaw bi ñu leen nuyoo lu ñeel nag fële ca Linguère benn boutique alimentation boo xamante ne bi danu ko fa dajji càcc fa càcc gu métti métti nag boo boobale ba nu waxee ki nga xamante ne bi ni ñoom nag ñoo yore woon boutique ba bi ñu xoolee seen caméra de surveillance bi ñu fekk gisee nag jëmm ja nga xamante ne bi moo doon jël di luubal alal joojale xar kanam boo Samba Ka tiktokeur borom rang-rang moom lañu wax ne moom moo doon jël li nga xamante ni bii mooy matériel ak alal ji nga xamante ne bii moo nekkoon foofule ca magasin boobale lu ci mënti xew nag des na leen ko toppal ndax ba xam moom mii di Samba Ka lii dëgg la wala am du dëgg loolu nag lu ci mënti xew des na leen ko sa toppal ndaxte kat ñi ngi ñuy xamal nañu kii di Samba nag jot nañ koo teg sax loxo ba yóbbu ko fële ca ndungu siin moom nag mii di bi lu ci mënti xew nag des na leen ko toppalaat ci ay xibaar fii ci Yaatal Vision